veiller pour former comme travailleur bi bu ñew ñi expliquer ko li xew ci manam suñu bëgg-bëgg ak ñom ñoom na lañuy def pour sen kaaraange bop donc côté environnement bi ñi leen di sensibiliser parce que ku na xam na ne du ñëpp a xam lan moo baax pour suñu environnement lan moo baaxul ci environnement parfois ni moo tax ñun suñu rôle muy tout le temps di leen sensibiliser pour que ñu respecter l'environnement ak aussi ñi ñëw travailler am kaaraange gu wóor ba ñibbi seen kër. Euh, social bi ñu ngi ci social bi ak ñu ngi si euh, seen sécurité en tant que tel donc côté comme li nga wax comme kaaraange wu nit ki ci boppam travailleur bi. bu ñëwee dugg suñu site ñun xam ne na si suñu responsabilité la nekk donc avant mi commencé benn liggéey suñu rôle moo ñu saytu ba xam liggéey bii dee amul impact ci moom ba xam liggéey bi amul lu ko siy gaañ ba xam aussi disponibilité yëpp jël na ko pour que mën na liggéey si jàmm ñibbi si jàmm te du am benn problème ku ne xam na ne nag liggéey ak euh, accident wala incident ñooy ànd mais ñun am nañ ay disposition ba nit ki bu ñëwee di liggéey ba ndogal fekk ko su suñu site lu ñu war dañ koy accompagner accompagnement bi mooy lan si biir site bi gis ngeen ne am nañ fi ambulance ci biir site bi aussi am nañ fi hôpital donc bu ko ndogal dalee su suñu loxo ñun dinañ ko yóbbu ci premier hôpital bi pour ñu xool ko buñ ko saytoo mu leer nañu lii ñun mënuñ ko fajal suñu bopp dañuy def automatiquement évacuation mooy ambulance bi yóbbu ko ordonnance ak prise en charge yi képp ku fi jaar duñ ne accident yi bari na mais ndogal mooy ànd ak ñu mais képp ñu ko fi am assister leen leen accompagner leen leen ba ba ñu ba ñu ba ñu rétablir. nga gis kii mooy génn sax wala directeur wala directeur général bu génn nga gis benn élément bu ko inter interpellé ci benn problème familial mais da nga gis automatiquement ñoom ñuy ñëw jël prise en charge bi luñ ko mën a dimbalee ñu dimbale ko ci ci ci suuf bo xolé entreprise bi donc day participer ci volet yëpp donc ci côté social ci côté environnement donc ci côté éducation donc ci côté social mën nañu wax ni entreprise bi jotna def lu bëre donc réfectionner na euh, ay hôpitaux entreprise bi donc construire na ay école donc entreprise bi construire na ay jàkk ak ay manam ay mosquée yi nga xamanteni entreprise bi entreprise bi da koy def donc si wàllu ndimbal aussi tamit au niveau de cette localité donc les demandes yi nga xamante ni RSE yi des fois man mii dama koy recevoir da nga fiy gis si localité bi ki nga xamante ni dafa feebar wara a subir opération wala dara donc dañ koy wax mu dem si lu ñuy mu dem wuti lu ñuy woowee facture proforma si benn cabinet wala benn euh, bi nga xamante ni hôpital bi nga xamante ni c'est dédié donc mu xool saytu ko. wax exactement prise en charge bi maanaam ñaata la tollool donc bu ñëwee si entreprise bi ñun li nga xamante ni mooy suñu kéemtalaay kattan duñ ko si def pour jàppale nit boobu nga xam ni nga xam ni dafa feebar pour mu delluwaat si ay mbokkam ànd ak ànd ak sagoom donc entreprise bi participer na si commune bu mbaan lu bëre parce que am na fi jamono bi nga xamante ni kanaal yi dafa fattoon lu tolloog douze villages donc kenn mënul def euh, agriculture ndax benn machine benn moto mënul xëcc ndox mi bu mu ñëw. donc l'entreprise m'a journée entière donc presque 15 jours dem au niveau de cette localité a ay engins lourds engins lourds donc consommation en énergie le coût bi nga xamante nous lay drainer plus de 15 jours yi nga donc nous avons donc gaz canal donc population des nga problème population yeb yëpp retourner ci sen toli donc continuer waat ci sen ay activités donc c'est juste pour montrer que entreprise bi nekul en concurrence avec les populations entreprise bi daf fi donc bien vrai que entreprise unité de transformation économique qui cherche profit mais à travers le cadre si nga xamanteni ci profit bobu ñu ngi koy am donc amna ci li nga xamanteni duñ ko duñ ko manam duñ ko tiq as leuf pour que que ñi nga xamanteni ñom ñoko ñoo mom yeyoo RSE. donc ñooñu ci cadre RSE boobu donc mooy ndimbal yi nga xamante ni moom la ñuy def donc c'est planifié sur la base d'un budget maanaam tëbuñu tëb rek def ko mais dafa am budget bi nga xamante ni dañ ko bàyyee jagleel pour RSE bi budget boobu moom la ñuy jël exécuté ko en fonction des demandes. donc ñu xool nan la ñuy jàppalee population yi si. ci biir noor bi noor bi def métti woon lool tool bi tool bi def am ñax ñax bu bari léegi ñax bi ba nga xamante ne jur gi kiif nañu dama ñëw ci ñoom man leen jox leen ma ñax bi ñu sàmm ñu ne ma waaw jox naa ñoo la ñax bi organisel ah, nga seet nooy jëlee ñax bi ma woo sama mbokk éleveurs yi yëpp lu ëpp junni éleveur ma ma def leen réunion générale man leen ñax baa ngi nii waaye yoon la ñuy duggee ci tool bi huit be ba deux kuy dugg huit ngay dugg deux ngay génn soo la nekkee nga jël téeméer saret yóbbu lal si jur kenn terewul waaye bu deeseer jote bul kenn dugg fii nag Sénégal ba mu daj terewoo ma kenn maa di sécurité ku dugg duggal ni nga war a duggee nga jël li nga war a jël ñu def ko ba mu jeex ba mu kaw a sori ñu wax ma ma dem ci ñoom encore ma wax leen ñu ne daañu jiixal ñaari piwo mille bu demee ba nga xam ne commencé naa euh, euh, dëgër ah daañu la daañu la ko ñu ngi koy gor di yóbbu lal seen jur. ci la ñu nekk ci noor bi ba euh, euh, noor bi jeeg ba mu am fukki fan lañ door génni piwo yooyu fekk jeekul benn nag fappul benn nag deexul benn nag jógewul fii euh, maanaam topp wut lu mu lekk ba mu réer naga karak fas yëpp ci lañ dund lii moo fi am bu ñu waxee defu fi dara wax nañ lu leen nekk commune de Seyeur ba commune de Mbane fu kanal nekk bi ñu demee ba dëkk biy fer tool yi bëgg yàqu moo jël machine am topp par canal topp par canal di gas topp par canal di gas ba canal yëpp jeex béykat yi dund na fin ba fi ñu toll nii canal yaa ngi fees dell ak ndox coronavirus ba mu am chef village bu ne camion ceeb diw suukar ah saako ay saako soble saako pomme la wàcce si kër dund nañu si lu bay at weer yu bëri lii nag buñ suul bi. dikkandoo bu mel na moom amul fen bu ñëpp meloon na moom tey Sénégal kenn du màng sak yaa ngi nekk éleveur ngay wuti foo sàmmi kenn du ñàkk foo béy